question bu am solo la boo xam ne dañ ma ko laajoon ci YouTube bi euh, lan moo tax góor di gaaw yëg boppam ma wax la feebar bi nga xam ne moom moo koy waral muy ndoxu siti ak hémorroïde bépp góor gu ko am walla jigéen gu ko am lépp loo mën di faj ci wàllu ngóora na nga faj wàllu ndoxu siti ak hémorroïde ba pare sa biir il faut que mu set ndax bu setee rek ba deret ji mën di sirkile rek dootoo amati néew kàttan dootoo amati li nga xam ne ne mooy di teel a yëg sa bopp wala ngay teel a àgg loolu pour góor ñi war koo xam waaye di dem di jël ay garab naa dama bëgg a faju ngóoraak dama bëgg a e, faju gaaw a daanu te fajoo li nga xam ne moom mooy baas bi muy ndoxu siti ak hémorroïde wallahi foo mën a dem sa feebar boobu du tax mu faju bépp ki nga xam ne tamit am nga saan saan bii da koy joxe saan day tax góor néew doole moo tax képp ku amee saan na nga ko faj waaw na nga ko faj te euh, saan ni koy faje dafa xaw a yéeme loolu am na saan yoo xam ne ne pour nga rey ko sa biir dafay xaw a jafe kon nag maa ngi leen di wax yooyu am nañ si ay traitement yoo xam ne ne si wàllum ngóor a moom bépp góor gu ko jël da nga wér si diir bu gàtt ba si jigéen gi nga xam ne dafa amee ndoxu siti nga xam ne ne bu saa bu jàppee ëmb dafay tuuru wala buy seey du yëg bànneex wala buy seey kanamam day wow mu nga xam ne dafay koy metti loolu tamit am nañ si traitement waaye ndoxu siti ak hémorroïde moom faj rek moo tee jigéen ñi euh, amuñu doom kon képp ku ko am na nga teel a jóg nga faj ko te bañ a jël yeneen i garab